mais le grand promoteur mais le grand ménager yaakaar naa arène nationale dimanche passé macha allah organisation bi rafet na amateur yi kontaan nañu ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi leen di nuyu yéen it di leen fay mais di nuyu waa Leewtoo yëpp di nuyu kilifa gi di ko ñaanal bu baax a baax yàlla sàmm ko ba fu mu bëgg a yóbboo Leewtoo Leewtoo dem fa incha allah. Tafa Tapha ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, combat bi jàll euh, ba Bombardier organisation bi ci laa bëgg ñu ñëwaat nan ngeen ko waajal woon. xam nga ñun dañu bëgg innover rek parce que lamb loolu boo gisee ñu def ko sax promoteur yi ñoo taxoon ma def ko parce que dama sóor ni sponsor yi dañuy ñëw ku si ñëw ba atteindre sa objectif rek da ngay daw soo dawee xam nga loo ciy rek làmb daa am violence lamb daa am violence moo tax ñu bàyyi. fekk du loolu dañu atteindre seen objectif moo tax ñu def loolu léegi nag euh, ñun suñu objectif lenn la moom mooy sponsor yi di daw si ginnaaw promoteurs yi et non promoteurs yi dem di leen seeti parce que ñun làmb la ñëpp bëgg lamb la ñëpp di seetaan produit boo am bëgg nit ñi xam ko da koy indi ci làmb comme ñun nag xam nañu li ñu yore baax na ñun ñoo ko bëgg valoriser nag ñun ñoo ko war a jox gëddam jox ko cëram ba mu àgg foofu mu war a fu mu war a àgg te loolu ni ñu koy defee mooy ñun acteuru làmb ak lu làmb ñun ñëpp ñu daje ñu waxtaan lépp lu bokkul ci làmb ñu dindi ko teg ko fee gis nga tey xoolal làmb ji cambal cambal yii ngeen di gis nii yëpp warul am tey yow mi dem fay sa xaalis toog ci kaw da nga war a gis gis nu la neexee mais soo ñëwee toog fee gis yii ñuy jaar ni ñuy jaar ni du la niiru dara bu dee football gis ngeen règlement dafa am donc règlement yi nekk si ñun ñëpp ñoo war a àndandoo respecté ko ku nekk yem fi nga war a woyam ku nekk toog fi nga war a toog géew bi leer bu géew bi leeree sponsor bi tey lu mu bëgg am da koy am visibilité la bëgg dina ko am mais tey bu ñu takkee banderole bi ba pare Alioune ngay ñëw def nii wéeru ci banderole bi sponsor bi indi xaalisam mais amul visibilité mbër may bëre ay supporters am jël seeni i bâche lal ko ci kaw sponsor bi sponsor du am lu mu bëgg yooyu yëpp lañ koy dindi teg ko fole bu ñu bëggee sponsor yi dellu si waat koo ci taxaw loolu la lay jooy naan ñun bëgg nañu mais bu ñu ñëwee conditions yi ñu fay fekk moo ñu neexul ba mu boo ñu taxaw donc ñun nag loolu lañ bëgg dindi ci làmb te c'est faisable xoolee journée bii passé lañ leen ñamal akas tuut lañ ci wàññi mu ëpp. kon da nga ñëw ñamal rek. non dañ leen ñamal parce que làmb samedi bi samedi daa amoon làmb te ñun li ñu bëgg def ci arène bi mercredi lañ war a commencer installer jeudi vendredi samedi. 4 jours 4 pour pour am ñu bëgg 4 jours lay durer mais samedi daa amoon làmb te waa ji comme euh, làmb amoon na promoteur boobu bëgguñu ko léser c'est vrai que xam nga lu ma wax dañ ma alul lépp lu ngeen bëgg def def leen ko. mais nit duñ la may lépp nga jël lépp loolu la quoi voilà. mais xeeti fumogène yi ma fi gis keroog yooyu mosuma koo gis grand. wallaay yeneen yi ñu làq moo ëpp doole yi gis nga bu ñu ko defee ba pare ku si nekk couleur bi nga sol ci ci ci nga ñëwee fii beneen couleur boo eggee sa kër da nga naan kii est-ce man la beneen couleur la lay jox te yooyu yëpp pare nañ ko maquette dama ko daan dawal si sama sama sama statut mais ñu koy seetaan dañ naan ma lii lan la lii xajul ci làmb lii mënul nekk loolu lañ mënoon wax moo tax ba ma ñëwee la moitié lañ teg. xam nga Eric Favre dafa nekk nit ki nga xam ne yàgg na dem di organiser ay MMA façon xam na ni public bu mu gis si làmb amul amul amul fenn à part football mu ni nag Aliou man ak yow bu ñu lëkkaloo war lañ fi mën a def la nga xam ne làmb dañ koy exporté di nga jóge si fii dem dëkk dëkk dem di seetaan di làmb lépp lu ñuy organiser ti làmb ñëpp nañ ko mën a seetaan muy tubaab nasaraan ñëpp ku mu mënti doon rek war nga mën seetaan làmb jariñu si làmb ci loolu tànk yooyu lañ nekk yan combat ñoo nekk seen kanam Eric ak Aline dañuy ñëwaat wala dañuy pause non bare na projet bi ñu nekk dafa bëri parce que euh, Sita Ama Balde nëbbu ma ko kuy naan ndox bëgg naa combat boobu Sita Ama Balde bëgg naa Ama seen aussi bëgg naa ko combat ak Tapha bëgg naa Lac de yaa ngi ciy dox Lac de Guiers bëgg nañ ko xam nga ko combat moo Modou loolu dafa nekk sax si contrat loolu moom moo tax mais su nekkuloon si contrat moom amaloon nañ ko adversaire ba pare. xëy xanaa da ngeen bëgg a xuuf pa non xam lu ñu bëgg dañ ñun ñun nag euh, dañu bëgg a taaral làmb rek c'est-à-dire que tey bu ñu jëlee mbër aussi amul benn mbër bi nga xam ne combat am day gën deux mois dañoo bëgg gën caa gudd. non suñu contrat ak yow mu yem ci deux mois. mu mois. mu mu passé mois. yi loolu lañ bu ko defee yow nga mën a rocceeku génn si ñun dem demal bëral beneen promoteur nekk ci leneen avantage lamb la avantage amateur yi la tey ku mel ne Eumeu Sène tey kon ni nga ko seetaan trois fois saison bi wala deux fois saison bi seetaan ténor yëpp di nga leen seetaan deux fois loolu lañ bëgg moo tax ba pare yamuñu foofu sport yi am na ñaari claf yu ñu bëgg def génération par exemple ñoom Goro Sock seen génération war na mën am claf. ñu topp si ñoom ñoom wës jàmbaar ak ñooñu war nañ mën a am claf am na daal ñaari claf yi nga xam ne bëgg nañ ko fi nga xam ne dinañ ci décerner titre meilleur meilleur lutteur ak roi des arènes de sport war nañ ko mën a génnee te ñi nga ñi ngi ci actuellement. par rapport ak combat yi nga tuddu léegi yéen a ngi ciy def ay démarches. waa xam nga ñenn ñi dañ nekk sous contrat loolu moom moo tax ñu ngi ciy waxtaan. Lac de Guiers Tapha Tine war naa ñor xom. non loolu mooy combat bi ku bëgg combat boobu Lac de Guiers Tapha Tine Lac de Guiers ku ko jëlul da nga ko ragal. ku mën mënti doon nag ko ko jëlul da nga ko ragal. c'est ak moom nee na pare na pour Tapha. non moom moom bu mu paree yàgg na moom du Lac de Guiers du Tapha rek moo tax mu paree Lac de Guiers ñëpp moom moom moom daf ñoo yombal lépp dafa ñëw expliquer ni que ni moom pare na pour ñëpp donc ñun tamit adversaire lañ koy wutal. Tapha warul jafe ci yéen parce que yéen ko mujjee tëgg. non xam nga nag des fois mbër mën nga bëgg sax ni man damay bëreeg diw mais sa entourage ni la nangam nangam làmb moo complexe mais ñun ak rythme bi ñuy ñëwee. non ragal naa bu ñu soxla mbër dina nangu parce que dinañ la defal li nga xam ne mosoo ko am promotion ci làmb danañ la indil ay conditions yi nga. xam ak de kii yóbbu ngeen ko euh, Europe kii ngeen ko yóbbu Côte d'Ivoire. ñoom dinañ am la nga xam ne ñu Tapha Tine ak Bombardier sax amuñu ko. ñi ngeen di waaj a tëgg. li ñuy waaj a ñoom si promotion par exemple tey ma jox la benn exemple su ma jëlee Ama Baldé Siteu su ma ko doon tëgg soxla ma seen face à face soxla ma ko leneen laa indi ci làmb. leneen ngay lu bees mais pas ñoom ñaar kon da nga ñuy xañ face à face yi ñun. non non non mën na nekk par distance mën na nekk à distance xam nga làmb comme ñun dañu bëgg ñëw pour changer làmb indi beneen nature donc lépp luy créer violence ñun dañ ko war a daw lépp li nga xam ne luy yàq la dañ ko war a daw dañ war a def la nga xam ne ka toog ci këram dina sawar doomam dem làmb ka toog fa la yore alalam dina sawar ñëw indi ko dugal ko ci làmb te loolu lu ñu koy def mooy maximum ñu mën a moytu violence luñ euh, ko mën a moytoo ñu moytu loolu en tout cas euh, amateurs yi yóbbante nan ma ci yow nee nan kontaan nan par rapport ak combat bi ni mu demee mais organisation bi macha allah. waaw jërëjëf parce que loolu yëpp lenn dong la ñun ñëpp dañoo si àndandoo parce que tey site yëpp ñëpp dañ ma doon wax ni ma bul accrédité di site yëpp. ma ne leen waaw nga ñu suñu liggéey. ma ne leen waaw mais man xamoon naa ne ñëpp laay accrédité site yëpp laay dugal te bu mu ñëwee bu ma waxtaanee ak ñoom dinañ comprendre parce que te ay nit lañu ba ma ñëwee may leen man bëgguma leen yàqal mais yéen it bu leen ma yàqal. ñëw leen ngeen toog seen place lu ngeen bëgg def bu ko def pare reculer leen ngeen dellu seen place mais gis nga bañ ko defee lamb daa set wecc parce que sit seen intérêt mooy ñu ñoo am image bu baax filmer lu rafet ñëpp gis te boo leen tegee yi dina sotti te bii di ñëw mooy dàq parce que bii di ñëw dama leen di créer turbine de presse. jaajëf jërëjëf merci jërëjëf.